mbaay soxna Mbodia Mbaye jugaat na nag ay man kër yi li ci nekk maa jàmm la du njëg dug may ay <laughs> allahu akbar am na loo xam ne nag tarkal la dafa mujjee yéeme nag tata Mbodia man la waaw nga ne ma man sama borom kër dafa yar ñaari soxna mais bu ko du ñaar lay boole ci benn néeg su nekkee ak sukkay ba mu neex ko mu tur nekk awa ah <laughs> tey ko laaj nit diine ba xam. lii te ñu koo laaj nitu diine ba xam eh li kenn ci wax nag tamit eh góor boo demee ba yor ñaari jabar amal ku ci nekk foo ko dëkkal xaw ma diine bëgg la ko xaw diine bëgg ko waaye xoolal du sutura du sàkk man jeeg bii maa tuddul nga bare ci kii di njëkk foo jëm <laughs> eh jeeg na nga ciy di ko joŋee defe ne mooy sëy bi réer nag. jën ju baree baree baree baree baree wallaay asim ñu ngi koy baax koo defee ne mooy sëy bi bu guddee ñu ñaar ñëpp ba tëdd ci biir ne ngay xool sama jonge mag di xool sama felaale <laughs> yàlla boo yor ko benn boo jàmbaay mu njambax njambax <laughs> fu ne mu jàdd jàdd fa nooy na la rek yow nag boo paree ci mbooja mbaay da nga dem ci keneen yaw ndax da nga am loo yóbbu teggi ne wut kaa la ñu waxante lii du sëy du jonge du sutura du sag te yabaate dëgg la nag ñu waxante dëgg man maa jiboo te wujju nag bay jiboo ci côté boobu defuma ko xanaa du ma ci am droit man la engagé dëgg du neex <laughs> ay loolu dëkk am Sénégal jaay gii loolu amu fi barke Serigne Bamba Mbàkke réer nga fii lu nee fi ne fii lu nee ne man may kër nga takk ma takk kii ñun ñaar benn jéeg ci benn néeg nga pare ci kii ne ci du ko yor ay ay puno bi la war <laughs> allahu akbar et eh, bu ko jéggi nangu waaye kaa la ñu waxante dëgg te bu ko jongewaale ku góor ki bu ko nangoo man dama ko du nangu loolu dafa teggi ne wut xaw ma dina nangu na ko xaw ma dina nangu laajal li ma ko moo Oustaz Modou Fall moomu ba xam lu mu ci xam laajal li ma ko du Fall ba xam lu mu ci xam man kat damaa jommi man Mbodia Mbaye mii ma yor beneen jeeg man nga war a pare ci mel ni koy puusi puno de delluwaat ca kale ci benn néeg ngay wàcc fii dikki eh waaye ndaw eh jéggi diñ leen waaye tamit yenn barke Sëriñ Bamba boo ko nangoo man sa man maa ko nanguwut boo ko nangoo ma sama jëkkër man maa ko nanguwut ma war a felaala nag jaagar <laughs> samay matériel mu doon sama yëf man man moom ko man xam li may daan sama jëkkër man jël samay feeñ may daane sama jëkkër tarka la war a nekk ci biir néeg bi yow jéeg ba nga daj sa bët eh da dof wala lu leen du jógee du jógee lu teggi newut la bu leen ko nangu ab jéeg bu ne ci kër lu la teg nga ko waaye ku dem ba war a mën takk ñaari jabar war ku ci nekk nga am boo ko dugal waaye kaa leen waxante dëgg des ku ci dem ba yor ñaari jabar ku ci nekk dëkkal ko ci biir néegam booy nga rey fay mbóot sooy rey matt nga rey fay matt ah. mais sa néeg la yaa ko moom bu la neexee dajji dal bi mu wàcc mais ma sama secret ma mais ma sama firaale sama xeetu jox nga mën koo jàmbaat du ma ko woon benn jéeg yàlla moo tax jéggu ni laar nag ku tële ku xamul dara ci néeg ku mënul dara ci biir néeg des fois góoram koy def day bëgg nga gidde beneen jabaram day bëgg nga gidde beneen ma dem man nee sama caay-caay sama bàndeek sama caay sama ñambax-ñambax ak sama sob sama riitam ma le fu ne beneen jéeg bi téye ko nii di ma xool may bital ñu koo ko filaale maa ri day taale lu ma ko jàpp sa yow ma ko géej gi xoolal am na yoo xamante ni bu leen ko nangu te dafa yoo xam ne sax dafa rafetul nag ci gis-gis rafetul ci dégg-dégg bu leen ko benn góor naxee man musumaa koo gis man musumaa gis bii kaa mu la toog sama bopp nag jéeg wax ma ko nii ne ma man moom laay dund ci biir kër yi allahu akbar dunduma ko barke Sëriñ Bamba jar na suma ayee dem ci digg mbedd ma soo ma soxlaa fekk ma fa waaye sama biir néeg bi maag beneen jeeg ngay dangaa jiboo géeg noonu du dul neex sa jëkkër fu ngeen ko teg ñun ñaar benn néeg ngay mëlañ mëlañ ñi fii di mëlañ mëlañ parce que Sëriñ Bamba boo mëlañ mëlañ ñi ci man dootoo dem <laughs> bul dem kaay fii wallahi asim dootoo dem feneen da ngay pare te dina la wut foo maa ay man kese maa fegal pare naa ci jéeg bu def waaye bool ñaar ci benn mais ni ku yor ñaari pro di di bërëm fii muy dem di bërëm fee muy dem ah am na yoo xam ne kat maari bi taali dara jaralu ma ko jéeg yi ñu koy jogee ak di ko jiboog seeni so seeni wujju saytaan néew ma de te li may wax dëgg rek la man la mboo jambaay du ma wax lu ma gëmul barke Sëriñ Bamba wallahi asim du ma wax lu ma gëmul góor gu dem ñaari jabar nga war a war ngaa mën a am néeg bu dugal nag di leen fi suturaale yenn yi nag ñàkk respect sa jabar benn laal ñaari jeeg ngay tourné fii di tourné fee ah allahu akbar tey Sénégal ay des fois da ngay dégg loo xam ne sa yaram bi day ñambax ñambax yi waaye da ngay mel maas li mbaa jàmm la góor ñi ko leen topp seen bëgg-bëgg barke Serigne Touba Mbacke dinañ fay nga di parce que leen neex rek lañu xam ñu ci bari nag xamuñu yoon te fonkuñu ay te respecté wuñu ay te wujj dafa garaaw c'est très dangereux dafa dangereux lool bu leen ko xeeb lii may wax barke Serigne Bamba bu leen ko yow loolu ma tax nga bëgg lu yomb bëgg lu la neex yow ku góor kii da tax man ma dem tëdd feneen di bokk sama wujj benn néeg bu guddee nga tëdd fii di tëdd fee du ma ko def bu dee Dakar laa dem mu jógee dëkk ba sax bu dikkee wutal foo nekk moom wala man ma dem feneen balaa néeg na kenn tëdd dem mais man tëdduma keneen ngay pare fii di dëkk ci man pour la su fekkee dafa ñëw man ma am yeneen néeg ma tëdd wala sama beneen néegu ma bokk sama néeg mu tëdd man mën naa loolu nga nekk ak moom la nga dund ak moom yow la waaye man it la may dund ak moom moom la madame yóbbu samay feem man di wiccax na ko ko filaale ko koy gis sama xeetu taal cuuraay sama xeetu takki fer samay dëggis ma sama marqué le pas une nga sàcc loolu bu fekkee da nga tàmm ma nag dajeeg man may défilé man te lu nee ngi ci nag waxin la déggin la lu nekk a ngi ci barke Sëriñ Bamba li ma leen di wax lu nekk ngi ci ku ko nangu ba ko kër yaa ngi tas kër yi li ci nekk ku ko wax àdduna bala kër gi ci nekk du njëg du may des fois da ngay dégg loo xam da nga est-ce que lii dëgg la fekk dëgg la luñ la wax am na. jeeg gii am na ci ñoo xam ne ay rebo lañ barke Serigne Bamba dañoo mën a dund dañoo mën a muñ man xam dañoo mën a muñ xam dañoo am fuñ dem mais am na yoo xamante nii bu leen ko nangu di ko wujjee du cër du respect man sama néeg du ma ko bokk ak benn jeeg boo xam ñoo bokk benn jëkk ngay pare fii di dikk fii pour lan c'est pas normal du yoon man bi ma ko déggee damaa daal jeeg di ma càpp téléphone ne ma loolu laay dund fii xaw ma nag lu ci nit di wax laaju leen ko Modou Fall waaye man Mbodia Mbaye mii li ma ci xam man sa yow ma ku takk te amoo feneen foo ko dugal baal ba mën takk jabari bari di teg mën leen a yore ko gën mënal leen dara moo ko gën foofu Sénégal ko fi wax dëgg ñu féetal la feneen man maa ngi nii ku yaakaar ne biir néeg rek laay wax moom laa man man la man la concerné moo a neex maa ko sentir taamu ko ñëpp yi wax la leen sax man ma dikk ni néeg laa bëgg a wax néeg laay wax moom laa sentir man la maa ko bëgg a wax di ko waxtaane fii ku nekk la la neex ngay waxaat kii ngi waxtaan ca làmb ja kii di wax ca football ba kii di wax ca euh, euh, mbalit maag dañu rey dañu rendi man yàlla ni ma kaay fii laa la soxlaa mission la ma dox ko boo yaakaar ni bu ma xuuxee ma daw réer nga barke Sëriñ Bamba jéeg yéen laa bëgg ngeen yeew te nite am na yoo xam du jonge waaye di la ak ñàkk fayda ba góor boo laaj ba ngeen jigéen sa ngeen bokk benn ca kër mu paree ci kii di yow ci yow ngay nemmi nemmi ci biir néeg bi di meññeeroo ko kii xam naa si sa wujju jógee fenn dëkk ma génn néeg ba jox la ko dem feneen mais tëdda yoo ci benn néeg ngay pare ci kii dikk ci man defuma ko lu ne ngi ci xeeb xal na mu lakk sa dàgg lii may wax waxin la déggin la laaj te waxtu yeeg dafa ko moom